góor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo mbégteeg bànneex la ñu am yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy topp ci chaîne bi di Buzz 221 HD ni ñu koy defee saa su rek tey nag ñu am fi ki nga xam ne moom moo di oustaz Abdou Khadim Sarr ñu fas yéene siq ak moom li nga xam ne moom moo di waxtaan waxtaan itam li nga xam ne moom moo di tolluwaayu réew mi balaay loolee ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi. aouzu billahi mina shaytaani rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqulu qawli mbokki senegal ñi ngi den di nuyu nuyu bi ñu baxo nuyu mudi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu tamit mbok diaspora bi di den safo di nuyu tamit mbolam telespectateur yi nga xamne ñoy ñooy suivre Buzz 221 ñi ngi den di nuyu yeen ñep di den jaajëfal bu ko defee oustaz dañuy daal di dugg ci li nga xam ne moom moo di waxtaan wi direct njëkkee ko euh, ci arrestation bi nga xam ne fan yi def nañu ko Jérôme Bandiaky nekkoon koo xam ne ku ñu ràññee la woon euh, ci gouvernement bi mu daan topp ci li nga xam ne moom moo di seen i convent moom nag euh, jàpp nañu ko jàpp nañ ne crime yi nga xam ne amoon na fi ci jamono yi deux mille vingt et jàpp deux mille vingt quatre bii nii moom loxoom laal na ci waral ñu jàpp ko naka nga gisee arrestation boobu nga xam ne def nañu ko kookee nga xam ne moom moo di Jérôme Bandiaky waaw koy jërëjëf sëñ Cheikh maanaam am réew mhm. su fekkente ne dañ caa nekk mhm. dañ koy tënk ci ay règlement mhm. te règlement yooyu ñëpp a ci war a tënku kon saa yuñ demee ba sib seen nit war nañ koo jël rawatina nag ñu tudd ko ci ay mbir wala ñu jort ci moom ay mbir war nañ koo jël téye ko laaj ko su fekkente ne xool nañ ba xam ne kat loxoom tëqiwu ca laaliwu ca waaye dañ koo jortoon su boobaa ñu bàyyi ko mu ñibbi su fekkente ne nag jot nañ ne kat a ah, liñ koy tuumaal kat am na lum ci laale jar na nag ñu téye ko. Mhm. diglu ko ba xam nag am na ñeneen ñu ko ci doon dimbali wala déet. Mhm. su fekkente ne dafa am ñeneen ñoo xam ne nag dañ ko doon dimbali ci ay ñaawteef. Mhm. su boobaa ñoom ñëpp war nañ leen jël teg leen ci yoon. ndax bakkanu doom aadama. dafa foor te sénégalais yi amul benn bakkan bu gën sa moroom. ñëpp ñoo bokk yem ci réew mi. kon nag muy Serom ki ak keneen ku man di doon. moom war nañ koo diglu. Mm-hmm. rawatina nag bakkan yu bari yi nga xam ne dafa rot ci réew mi ndax am réew kat mm-hmm. waroo ko yor ay bakkan di te doo indi benn enquête mm-hmm. ndax xay na bu fekkonte ne enquête da amoon bu jëkk ñu xooloon ba gis na ñii ci seen loxo taq kat teg nañ leen kon bu bu nguur gi ñëwee duñ fi nekkaat di defaat ay enquête kon dañuy appliquer rek la luwaa wax ci ñoom ñu daal di jàll ci leneen waaye bu fekkee ne daa am nguur goo xam ne dafay nekkoon di def lu ko neex te kenn ku ci nekk loo def du mujj fenn ndax kèn dula enquête kèn dula laaj dara mhm. dañ lay bay ngay def li la neex mhm. su boba bu yagge rek day am rew mhm. kon japp gi mom wax deug yalla lu jaadu la tay itam lu jara def ab taxaw seetlu la ndax nane, naa ne euh, du menn mom rek ndax nit def aw ñaawteef menn mom kese faaw mu am kum lëkkaloo léegi nak nañ ko téye nak ba xam ñan la lëkkaloo lo bu ko defé ñu dem ko leen ba japp leen ñoom itam ci ñaawteef yoy nga xam ne moom Jérôme Bagnac yi def wala sax liñ wax ne don nako def depuis boobee ñu ngi koy daal di tudd depuis deux mille vingt et un ba li nga xam ne moo deux mille vingt quatre waaye itam gis nañu ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon euh, mu di ñoom Macky Sall bi nga xamee ne jeexal na du nguur gi ñoom dañoo daal di génn réew mi waaye ñu gis ki nga xam ne moom moo di Jérôme Bandiaky dëkk ci même logement boo xam ne état moo ko doon fay naka nga jàngatee lool ci koo xam ne ñi nga daan àndal daanaka xaaj bi jamono jooju génn nañu lan nga jàpp ne moom moo ko may fit wa ilaa ban mission moom moo ko taxatoog ci li nga xam ne moom moo di réew mi ba léegi waaw li ma jàpp rek mooy mhm. xëy na yàlla daa am lu mu bëgg a leeral mhm. parce que bu fekkee moom daa am ñeneen ñum mu ñu di ko def loo muy def wala mhm. boog ñu jot na dañ na def dara ñam àndaloon ñëpp daw génn moom mu toog fi ba pare nag di dëkk ci logement yoo xam ne gouvernement moo ko moom a ah, damay ragal ne kon daa am lu yàlla bëgg a leeral ndax kon mu daw def nay moroomam waaye daal moroomam yooyu nga xam ne dañoo dawit man dëkkuruma woon ndax yàgg naa too fii ne Macky Sall bu defee passation de service midi mhm. kaso ba la war a yendu ji bu ko defee ngoon kaso la war a mhm. kon moom kenn wuru ko woon a bàyyi muy dem ndax ñaawtee fi am dara loxom génn ci mhm. ñaawtee fi am yépp loxom génn ci kon yaakaar naa ne kee bu demee ba nga xam ne nguur ga daanu na ñëpp daw ba mu des moom damay ragal ne yàlla nëmmul mu dem te dafa mel ne ni ci ay information amoon passeport diplomate kon xëy na liñ fekk ci këram ci passeport diplomatique du benn du ñaar voilà kon xëy na yàlla ci boppam Mm-hmm. moo nëmbut moom mu dem. parce que kon kuñ war a téye la kon gëm ñenn li ñu wax ne xëy na dafa amoon mission parce que boo xoolee moom ci wetu pale pale bi la dëkkoon logement am fi mu nekkoon ñenn ne dafa am li nga xam ne moom moo di mission wala yow dàq nga wax jooju noonu. moo tax mu am fitu toog ci li nga xam ne moom moo. waaw loolu lépp lu mën a nekk la parce que itam. Mm-hmm. Macky Sall. Mm-hmm. dañ koo bàyyi mu dem. ba pare di jokkoo ak waa partem xanaa xamoo ne ëllëgati si biir coup d'état sax mën naa am. Mm-hmm. loolu lépp nag euh, président bi war na koo sóoraale président Bassirou Diomaye fay mm-hmm. war naa fexe ba képp ko taq ci Macky Sall mm-hmm. ñu am luñ lay jiiñ war nañoo fexe ba teg la loxo beneen bi ci des itam mooy gis nga agresseurs yi bi mu baree ñuy dugg ci kër jàmbur yeeg yooyu la ma bokkoon na ci samay wax mooy président li mu waroon a def mooy quarante cinq milliards yi ñu jënde woon ay ngànnaay na ko lu ñutu ba xam fan la ne ba pare parce que dëkk bi amul sécurité de te xamuñu ba xam ngànnaay yooyu mooy dara wóoru ci kon bi mu toogee li mu war a jëkk a def mooy. 45 mhm. milliards nañu lijjanti ngànnaay yéen ko jëndee fan la nekk ba noppi. Mhm. bu ko defee ñu récupérer ko jox armée bi. Mhm. sinon bu dul lool rek. dañuy xeex euh, naan dëkk bi amul sécurité dëkk bi amul sécurité. waaye mënuñoo fexe ba ba xeex ko ndax. ay milliardaires fi nekkoon. doon te itam ñoom ay milliardaires ñoo leen opposé. caay-caay gu ne nag am nañ ko. kon nag. bu fekkente ne dañ ne Sérém Bandiaky xëy na daa am mission bu muy dox it. ah nii ko Mm-hmm. neexu ta wedd de. yow daal maanaam wax jooju dàqoo ko waaye itam saxaloo ko. daa dàqu ko defee dañu daal di dugg ci li nga xam ne moom moo di élection législative yi gis nañu gàmm gi nga xam ne moom la ñu daal di weesu ki nga xam ne moom moo di euh, Serigne Moustapha si yëkkati woon ay kàddu jëmale ko ci ki nga xam ne. moom moo di Ousmane Sonko waaye itam di wax ne ni ñu déggee ni mu waxee mu ne ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko daf ko daal di wan ginnaaw maanaam daf koo daal di wor naka nga jàngatee kàddu yooyu nga xam ne kii di euh, sëriñ Moustapha Sy yëkkati woon na ko ci jouru gàmm gi. waaw sëñ Moustapha. Mhm. kilifa diine la. Mhm. waaye président Ousmane Sonko bu fa demee. Mhm. dem Tiwaawoon dem ca xalifa bu mag ba. te ñëwut ca sëñ Moustapha Sy waru koo naqari bu dee am na kilifa. ndax nit ki nga xam ne kat am nga kilifa. su nit ñëwee bu ñëwut ci yow te dem ca sa kilifa kay mel na ne ñëw na ci yow bu fekkente ne am nga kilifa. waaye nag su fekkente ne daa dañoo dox ci wàllum politique. yaakaar naa mu demoon fa ngir dolli ak masala loola it wàññiwu dara. Mm-hmm. waaye nag sëñ Moustapha bu Ousmane Sonko demut ca moom wërta tax muy génn. ñenn ñi ñi ngi ruumalaat ci suuf naan euh, dafa amoon ci jamono jafe nga xam ne ñu ngi ci prison bi loolee waral nag jamono yi ba tey Ousmane Sonko seetiwul ki nga xam ne moom la Sëñ comme ni ñu koy déggee ci Déthié Fall ne ab euh, audioom koy waxee ne doon na ci daggal Ousmane Sonko comme genre yooyu noonu waaw xam nga sëñ Moustapha moom jàpp naa ne bokkut ak comme karaasu Déthié Fall geeg yooyu parce que moom lu bon bon yi mhm. bon. jàng na lislaam bokkut ak ñee ñee moom xam nga adduna rek lañ jàng. Mhm. waaye sëñ Moustapha moom jàng na lislaam mhm. su fekkente ne nag. Mhm. Euh, dafa daal ci kaw Ousmane Sonko nañu xam ne nag mhm. sëñ Moustapha at mu jot noonu lay def. Mhm. at mu jot faaw mu daal ci kenn. <laughs> Euh, yonente yàlla Daawuda. dafa naa euh, gàmm gi passé yaakaar naa ci kawam la daloo. wala Souleymane. ba am yu mu ca waxoon ba mu jur fii polémique. kon moom at mu jot dana am lu mu wax. kon bu waxee dara Ousmane Sonko yaakaar naa loolu wërta naqari kenn. parce que dañoo war a xam ne rek loolu jikkoom la. at jot ndax su fekkene dañuy woote guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam mhm. la ca jaadu won rek mhm. net di histoire yonente bi alayhi salaatu wasalaam guddi gep su fekkene da nga da nga japp ne yow guddi gep mënoo so mhm. soo ba sonn kenen jël jaar ja ray yonente bi alayhi salaatu nit man na cee fanaan ta du jeex kon yakarna jirut di ci dugal ay ki politique wala ngay dajala say wax ba mu bari ben suru gam nga ñëw génne doolu yëpp daanaka lolu mo mënoon na ñak wax deug yalla batay ñu dess ci ki nga xamne modi Serigne Moustapha doon na wax ne moom nag fam leen di xaar du fenn fudul ci li nga xam ne moom moo di élection législative yi nga xam ne ñu ngi ci jëm te gis nañu nam ko waxee woon noonu la ko defee ndax moom Serigne Moustapha si dem na ànd ak ki nga xam ne moom moo di Khalifa Ababacar sàll waaye itam ak ki nga xam ne moom moo di Euh, Anta Babacar Ngom Pape Djibril Fall ñooñu ñi nga xam ne ñu ci opposition bi ñu ci ëpp Bougane Gueye Dany def ñoom li nga xam ne moom moo di coalition ànd sàmm sa kàddu waaye itam servir le Sénégal comme nag mën nañoo dëggal ne la nga xam ne waxoon na ko moom euh, lam doon tëkkoo ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ma nga ca. waaw loolu moom am na ci droit. Mhm. sëñ Moustapha am na ci droit parce que. Mhm. pire tamit kenn ku ne xam nga ne. Mhm. Euh, parti la. waaye tamit ñu diiñ lañu. su fekkente ne nag sëñ Moustapha daa am lu dox diggante ak Ousmane Sonko. te itam yaakaar naa loolu mu wax bu ko waxul woon est-ce information lu jiitu mhm. parce que bu ko waxul woon it Ousmane Sonko génn mhm. daal ne Pastef day demal boppam mhm. ndax sëñ Moustapha amul woon boobu information ah, parce que bu toogoon daal ne day jàppale Ousmane Sonko mu ñëw daal di Ousmane Sonko daal ah Pastef day demal boppam bu boobaa day xaw a doy waar kon sëñ Moustapha li mu def sax nag am na ci droit waaye nag nañu mais ñi nga xam ne ñoom la alliel ku ne xam na li nga xam ne élection présidentielle yi ñu génn yin am ci ay voix waaye mu ñëw euh, ëppale leen ay voix ba pare ñëw dugg ci seen biir est-ce que maanaam nekkul ne day sacrifier li nga xam ne nag moom moo di parti bi. ba tax mu mu coalition ñee. waaw xam nga tamit nit. ci koo xam ne maanaam ku ne xam na ne Bougane Gueye Dany daanaka jarut ak fenn lenn ci sénégalais yi mu dem dugg bokk ak moom li nga xam ne nag moom moo di coalition est-ce que loolu jàpp nga ne moom la tax mu bëgg def li nga xam ne moo di coalition mu dem ca pencum ndawi réew waaye itam am fay député est-ce que loolu dina yomb itam. waaw xam nga Sénégal moom. Mhm. mer bu yàgg na fi. mën ngaa mer sax ba dugg ci loo xam ne du doon la la gënal ndax léeg-léeg nit ki mer ba fasa jabaram waaye dal ci lu ko yées parce que dangay ngay rek daal ne lu ma am baax na waaye sëñ Moustapha ci boppam man su ma doon mooma sax damay demal sama bopp man du ma dem di coaliser kenn mu def pile for reste déedéet mm-hmm. man su ma doon mooma damay demal sama bopp lu ma am jël mm-hmm. parce que itam nañu xam ne it eh, élection yi mm-hmm. ñoom biñ biñ maanaam élection président bi mu jàllee kenn ku ne daa war xool boppam xam nga ñoom amuñu sax trois pour cent 3 pour cent sax amuñu ko. Mhm. léegi bu fekkente ne amoo trois pour cent ba pare mhm. den daje koo xam ne moom 2 pour cent sax amu ko. Mhm. te yow nga féete leen kaw. su boobaa bu ngeen dajee itam ah man man ngaa gën a dellu ginnaaw de loolu mën naa suuraale. waaye daal opposant yii ma gis moom. gisaguma ci opposant yoo xam ne daal. jàpp naa ne war nañoo mën a tiital nguur gi wax dëgg yàlla man gisaguma ko. jàpp nga ne daal ñii maanaam dañoo boole soon doole gis nañu fee Amadou Ba gis fa ki nga xam ne moom moo di PDS waaye itam gis APR. Idrissa Seck ñoom dañoo def li nga xam ne moom moo di coalition yow jàpp nga ne est-ce que dina yomb li tax ki nga xam ne moom moo di Diomaye Faye tas euh, assemblée nationale pour am li nga xam ne moo di majorité ci assemblée nationale est-ce que loolee dina yomb ndax coalition yi bari na lool waaye itam ñi itam nekk na ay kàngam ci wàllu politique itam. waaw xam nga bu fekkonte ne président Bassirou Diomaye Faye daa nekk ci deuxième mandat. Mm-hmm. su boobaa moom jàpp naa ne gars yi bu ñu defee lii mën na koo gaañ lool sax. waaye yaa ngi ngi xalaat maanaam un jour euh, maanaam gouvernement bi néew doole. waaw mën naa nekk parce que xam nga nit ñi. Mhm. Sénégal ñu ci bari dañoo yàkkamti. Mhm. te itam nañu xam ne. Mhm. ñi leen opposé wu am nañ xaalis. te mën nañoo wut ñu leen di waxal. loolu nañ ko xam. waaye lu mën a xew rek mooy. élection yi moom bu fekkente ne gouvernement bi. comme yëggagu fi. léegi xam nga 54 pour cent la ñu waxoon ne moom la man jàpp naa ne ëpp na ko. jàpp naa ne ëpp na kon lu mu dellu ginnaaw dellu ginnaaw dellu ginnaaw moom. 54 bi mën naa mu balancé waat fi. man ci li ma gëm ndax jàpp naa ne ëppoon na cinquante pour cent mhm. su fekkente ne cinquante quatre pour cent la amoon it mhm. su boobaa du balancé wu ba balancé wu ba cinquante pour cent yi moom mën koo rëcc mhm. te itam ñu xam ne élection législative ku jiitu rek moom amul kii ak yooyu moom ku jiitu rek ku jiitu rek daanaka yaay boobaale député yëpp kon loolu moom nañ ko xam te itam ñii ndax bu ñu àggee ci war a génne liste bi ndax bu boobaa du am bii coo ci seen biir ndax ku ne naan maay nekk tête de liste ak yooyu. Mhm. loolu it mën naa di jafe ñu ngi koy romanaat naan ki nga xam ne moo di Bougane ak Thierno Bocoum daanaka ñooñu fu ñu bokk te jiite woon rek dañuy dañuy faral maanaam wane. ginnaaw waaw xam nga Bougane moom. couleur mhm. couleur euh, parti moo ko génne woon ci ci coalition Yewwi Askan Wi. Mhm. damay ragal lu mel noonu bu amaatee. wala moom mu bëgg a jiite te nanguñ kaa jiital bu boobaa te sëñ Moustapha. xam nga Bougane demoon woon élection. léegi sëñ Moustapha moom am na comme gémmoon ba mu dem élection partem Mhm. léegi su bëggee jiital kenn bugaan bëgg a jiitu it bu booba coow day am rek mhm. ndax ki participé woon ci élection bokkut ak ki ci participé wu. Mhm. mais bi li ñu ko tuddee mooy ànd sàmm sa kàddu est que itam maanaam ñoom ñëpp duñu bàyyi li nga xam ne moom mooy seen intérêt boo boo gisee ñu tuddee ko li nga xam ne. moom mooy ànd ànd ànd sàmm sa kàddu Sénégal ñi fi sàmm seen kàddu bëri wut de. Sénégal ah, moom loolu lan war a parce que boo boo xoolee day mel ne ñoom ñi ko séq yenn yi euh, maanaam duñu sàmm seen kàddu ñoo waral. ñu ñu wax ne noonu ne noonu sàmm li xam ne moo di seen kàddu waaye itam servir le Sénégal. waaw man daal li ma xam mooy. Mhm. su fekkente ne ñoom dañoo bëgg ànd. Mhm. xam naa ne ku mel ne Bougane daal nit ñi moom xam nañ ko maanaam siiw na nii. Mhm. waaye taxagu nag nit ñi jox ko bopp. ndax Bougane lu ñor mu wax lu ñorul mu wax te nag gis nga wax. waxkat saa yu waa këram mii nee kàddoom rek dañ koy yab <laughs> waaye su doon mooma. du ma def lu génn rek ma wax damay bàyyi ba lu am fulla ak fayda loo xam ne danaa ko mën a teg ci loxoy Sénégalais yi nga xam ne su waxee ñëpp na gonga kenn du ko mën a weddi waaye bu ab saag génnee nga wax bu président tukkee nga wax maanaam lu ñor nga wax lu ñurul nga wax day dem ba mujj duutu amati benn kii daal bu ma la déggee moom dafa teel a opposé wu ci gouvernement bi nga xam ne moom moo fi nekk waaw xam nga moom fës la bëgg waaye boo bëggee fës mhm. na nga teg ci loxoy nit ñi duñ mën a jàpp Mhm. wa xam nga teggu ci loxoy nit ñi lu kii parce que ñi tamit mhm. dañ fay yàggagut yàgg goo xam ne mhm. man mën nañ leen xex ba convaincre kenn ci ñom parce que ñom bu dul woon journaliste yi nga xam dañ leen xex xeex sax daanaka opposition bi do ko dégg waye nak heureusement ba journaliste yu bare bare bari di xex nguur gi ngir lan moy bëgg seen intérêt bop ta kenn defu leen ko rek motax tax rek ñuy xeex nguur gi waye dal euh, élection député dal nañ ci dem ak jamm te lepp nak ñu teg ci yoon comme dañoo wote jub jubal jubanti nañu fexé ba lepp nañ ko jaarale ci yoon mhm. su boobaa bu yàlla defee ñoom ñu am majorité mhm. ñu ne ah xëyrun loolu lañ bëggoon mhm. su fekkente ne amuñu ko itam ñoom ñu taxaw xoolaat seen bopp nag ba xam lan moo leen ko xañ suñ ko xamee ba pare ñu jéem a jàjjuwaat nag jéem a nekkaat ci bëgg-bëgg askan wi loolu daal laa leen di conseil kon yow yaa ngi jiixi jaaxane mën nañoo am oppo mën nañoo am majorité wa ilaa mënuñu ko waaw mën nañ ko am mën nañ ko ñàkk bañ parce que li ci xew dafa bari xam nga boo xoolee boo xoolee lu mel ne murab murab national ñoom ni ñu tànne xam nga dañoo wax ne mhm. sarti mhm. da ngay am carte membre mhm. da ngay am carte judiciaire ak yeneen papier yi muy àndal euh, photocopie carte d'identité bu ñu légalisé ak yooyu yëpp yooyu yëpp da nga ko war a am waaye boo xoolee ci mudam ñom ni ñu tànne ñom ci seen bureau national lañ ko yamalé bureau national parce que bi ñi nekk ci bureau ba rek ñom ñoo ñoo def leneen neex parce que bi ci jëk moy su fekkante dañ ne mudab national mudab kenn ku ne xam nga buñ ko tuddé mbacké tax légui ñu de président bi muy def prêter serment mm-hmm. ñoom dañ leen a jox ay carte nan nañ ko jox seen daara mm-hmm. ñoom waa bureau ba ñu séddoo carte yi ñëpp na ceeb loolu erreur la mm-hmm. parce que nekk ci bureau national tikku ne lu la jox rek yaa ko war a ngar daajjoo ñu demati ñu ne président Ousmane Sonko kat nee na ñaari jigéen ak ñaari góor lay jox murab national waa bureau ba daal koy waat ci seen biir nga xam ne ñu baree bari ñu ngi kaas lu mel noonu loolu ragal naa mën naa jur yàq du leen yàqal maanaam di doon waa APR yéen nga xam ne yéen ñëpp xam ngeen ne yéen ñëpp mënoo leen nekk li nga xam ne moom moo di ay député tamit mënoo leen dem ci assemblée ne moom moo di nombal tànk est ce que a waaw lu mën a nekk la waaye xam nga nag mhm. gis nga kenn ku ci nekk bi ngay xeex mhm. poste taxul laa jóg dara taxul laa jóg mhm. waaye comme dañ ne dañ ne jubal ak jub jubanti comme loolu lañ wax teg ay sart dañoo waroon a xool Imam Darame ba xam am na carte Pastef carte membre. Mhm. suñ xoolee ne amu ko ñu ne kii kat duñ ko mën a jiital parce que sart yi loolu la wane. Mhm. comme amu ko kenn waru ko jiital. Mhm. bu ñu ragalee aw làmmiñam nag ba tax ñu jël ko daal koy jiital. te parti texte parti bi wanewut loola. day am ñu muy décroisé loo. kooku benn la su fekkente ne tamit da ngay dem ci Pastef. nga xam ne ñoom dañ doon daje ci seen biir. daal di waxtaan daal ne kat. léegi dañuy def consensus ba am juróomi député yi nga xam ne ñoom lañ bëgg a tànn. pour jiital leen. léegi ñu jékki-jékki rek daal di womboo mépp daal ne ku bëgg a bind rek na ñëw bindu te te dégg naa ñoom tànn nañ nañu tànn ba pare loolu moom dégg naa ko ci wéew bay ñu ne ñani tànn tànn nañ ba pare Sonko moom mooy tànn gars yi dañuy kii rek maanaam dañuy bind yóbbu Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu ko defee Ousmane Sonko moom mooy tànn Ousmane Sonko xamul waa Touba gépp ñi nekk ci Ousmane Sonko xam nga dèjà rek moom su fiy ñëw dafay ñëw siyaar wala mu ñëw fi di jaale ak yooyu waaye rencontre wut parti bi ba xam leen dëgg-dëgg Mhm. kon ñay doon député ak ña ko du doon moom xamu ci dara mhm. xëy na kay ñi nga xam ne ñoo ko jiite ñoo naan ko diw ak diw ak diw kat bëgg na ñu nekk député buñ sañoon ñooy doon suñu député ñu dugal leen ci liste bi mhm. waaye moom xamu leen mais est-ce que jàppoo ne maanaam yooyu noonu maanaam kii dafa war a nekk lii comme maanaam xëccoo googu noonu est-ce naru leen a yàqal yéen ci élection législative yi waaye laa maanaam bu jàllee jur li nga xam ne moom moo di frustration est-ce que mënoo leen waxtaan ba euh, juboo maanaam jiital ñenn ñi ngeen bañ am problème bi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar amoon nañu ko ak yeneen ak parti yu ci ëpp parti yu ci ëpp loolu moo leen daaneel est-ce que loolu itam mënu leen ko moytu ci yéen ñi nga a woote li moo don de soi pour mm-hmm. dañ daan def ñoom. Mm-hmm. dañ daan dajee ci seen biir waxtaan ba am consensus. Mm-hmm. xool ñi ni jiital. man la ren gisuma ñu def lu mel noonu. parce que ren dañ ne rek ku bëgg a doon candidat da ngay ñëw enregistré wu ñu bind la. mais loolu loolu mooy base bi maanaam da ngaa waaw léegi ñoom ñëpp dañuy bind képp koo xam ne bind nga am sa liñ wax liñ laaj tamit maam membre Pastef nga am ko am sa casier judiciaire comme yooyu yëpp ñi nga xam ne laaj na la ko mooy de trois mois boo ñu moom mooy tànn. waaw léegi mooy tànn. léegi bu dee loolu mooy sart yi. Mhm. moo tax kon élection yi passé defuñ ko woon noonu. xam nga élection yi passé defuñ noonu. élection législative wala woon. Mhm. kenn deful noonu. Mhm. kon bu ñu ñëwaatee nii dañoo waroon a def nañ defoon bu njëkk xam nga bu njëkk déggoo benn coow dañoo con def waxtaan. mais bu pouvoir bu bu dugg ku nekk maanaam nga ngaa génn si ko tamit. Ah, waaw xam nga rek maanaam gis nga mbir daal boo ko xasee ba rëdd. Mhm. rëdd bi nga rëdd daal na ko ñëpp respecté. Mhm. maanaam daal lii mooy sart yi ko ñëpp respecte yow da ngaa jàpp ne Imaam Dramé amul amul kii amul garde membre Pastef. a ah, yàgg naa toog ci télé ne amu ko de. yàgg naa kon du yoon kenn di ko yàgg naa ci télé ne amul carte Pastef kon yaakaar naa du yoon kenn di ko jiital mhm. même bu dara sax man jàpp naa ne kii bu ci nekk rek Mm-hmm. règlement yi tënk kii bi na ci ñëpp tënk parti bi waaye tekkiwut ne sax mm-hmm. président Ousmane Sonko bu nekkat quatre euh, maanaam quatre député lañ bëgg a jox mm, mu te mm-hmm. tekkiwut ne ñoom waa bureau national bi ñoom ñoo ko moom dañoo war a waxtaan ak baas bi. mais dañ koo bëgg a dañ ci seen ñoom. ah loolu laa gis. waxtaan dafa amagul. ah ña fa demoon daal. ñoom lañ wax mooy ñi ca bureau ba lañ tànn. ña ca bureau ba nag bu ñu leen tànnee xam parce que bu fekkente ne tey. bureau bi mënta ñàkk dañ faa waroon a jël kenn. xool département bi nga xam ne moo ëpp doole ndax bu dee Mbàkke moo fi ëpp population mhm. te itam kenn ku xam nga ko mhm. kon normalement waroon nañu am benn sëñ daara fii mhm. dem ba boo xam ne kii nañ jël fa kenn jëlaat keneen fële bëgg jël quatre député ci seen biir loolu jaaduwul yow daal d'accord loolu da def fee yéen yi département yi voilà daal li ñu nii moom même bu ko président Ousmane Sonko ko waxee it man d'accorduma ci te itam jaaduwut te yoon parce que teg say parti boo xewul loolu Mm. kon daal kenn ku ci nekk mais yéen kon est ce que mënuñoo xaar maanaam bukki bi màkkoon waa APR matt leen parce que jamono ji ni ma déggee maanaam ab xëccoo moo ngi bëgg a am ci biir ci loo ah, xam ne ay privilège la xam nga man maa ngi ci terrain bi mhm. tout le temps man maa ngi ci terrain bi maa ngi jaxasoo ak nit ñi mhm. dégg coow li ni mu bare mhm. xëy na nag dafa am yoo xam ne nit ñi duñ ko wax ca kaw parce que duñ bëgg mu yàq waaye ragal naa député yi de ragal naa mu am ab ab séparation bu bare bare bare bare maanaam te itam nañ nañ gañe woon boycott dana am ci li nga xam ne moo di législative waaw maanaam comme ni ma ni ma jàppe woon ci mhm. élection euh, présidentielle yi di jàll ni ñu mhm. gagné woon largement mhm. yaakaaruma ne député yi mën naa demee noonu xar ah wala boog sens dëgg lay doon de moom maanaam parce que tamit ñi tàmbalee njurumti ci suuf ka wax ak yooyu moom mi ngi bëgg a bari de. mais xanaa kon la taxoon ngeen doon woote maanaam da ngeen cee génn mu di defar réew mi waaye itam maanaam sens li nga xam ne moom moo di Sénégal parce que boo leen boycotté maanaam dana lekk loo xam ne maanaam da ngeen di suuxal li nga xam ne moo di projet bi est-ce que loolu yéen da ngeen porter combat di bàyyi euh, maanaam euh, lu mel ni muy ay wàllum privilège di leen yàqal li nga xam ne moom ngeen fi jot a taxaw tabax tamit. déedéet xam nga sëñ daara yi ñoom. Mhm. xëy na yëf yi naqari na leen waaye dégguma kenn day boycotté. Mhm. dégguma kenn ku ne day boycotté. donte nag yëf yi naqari na leen même benn sëriñ daara boo leen ko amee maanaam mel na yéen sëriñ daara yëpp la tamit. wala ah, waaw daal lu man a xew daal mooy. Mhm. maanaam li fierté maanaam ñu ne donga benn donga daaraa ngi nii rek dugg na dugg na dugg na biir assemblée nationale loolu xam naa fierté la war a doon ci yéen ñëpp benn benn magi Pastef wala nangam nangam genre ku mouvement yi nga xam ne ñoo ayu ci biir Pastef yooyu yëpp ñu ne nangam dugg ci rek loolu xam naa sag lay doon ci bépp mouvement boo xam ne mi ngi ci biir mi ngi ci biir parti bi sama xalaat waaw xam nga xam nga loolu li koy li tax mu mën a nekk mhm. mooy dañoo war di wàccaat ci base bi waxtaan ak waa baas bi mhm. bu ko defee maanaam daal yow daal li la naqare mooy maanaam waxtaan bi ñàkk waxtaan voilà boo xam ne gënoon naa métti ñuy waxtaan voilà kii xam nga bu fekkente ne tey dañoo porté ab combat di ko dox mhm. ba mu toll fenn mhm. ñu dem daan ne ah ñeenti cër kete ngi nii mhm. ñoom waa bureau bi ci boppam waruñ koo jël ci seen biir ñoom la ñu waroon a def mooy jël ca kenn la ca def ñu séddale ko ci département yi kon mën nañoo rek ñu xam ne noonu la mën nañoo wax ne seen euh, waa Moudaab gi ci département bu Mbacké kenn binduwul dem pour nekk jëriñ ci kenn kenn lañ ci jël mais bindu nan mais l' essentiel moom bindu nan pour dem ci la nga xam ne moo di élection yi. maanaam candidat la candidature. waaw maam Thierno Mbacke ci bokk ci bureau ba la bokk coordinateur waaw ci bureau ba bokk. moom demoon na. waaye nañ doxalee yëfee daal. xam naa ne génnu leen ci seen biir. Hmm. waaye li jaad woon mooy. li jaadu woon moom bindu na coordinateur coordinateur département bi. waaw demoon na ci ci la bokk. même bu leen amee benn député sax xam ngeen ne ah. maanaam. moo jaadu woon parce hmm. que maanaam da ngay xool Touba. Hmm. Touba dayo bi mu am ak li mu participer ci élection yi ñoom. bu dul dara sax dañ leen war a jox gëdd. Mhm. sëñ daara yi bu dul dara sax dañ leen a war a delloo seen gëdd. Mhm. waaye nag bu fekkente ne sëñ daara dañuy sonn ba pare mhm. xam nga mbir mi boo ci sonn du cee gën a da bëgg cër de. waaye da nga ci sonn ba pare ñu bëgg koo jël nag jox ko koo xam ne yaa ko gën a yeyoo loolu moo mën a ñàkk xam nga ki toog ci télé yi ba taay daan na man awma carte membre mhm. ñun xamaluñ ko daara man du ma ne awma daara amu daara waaye man xamalu ko daara maanaam yow bu ma la déggee ni maanaam da ngaa yaakaar ne moom faaw mu bokk ci li nga xam ne moom moo di candidat yi maanaam euh, ci ci ci li nga moom moo di législative bi waaw boole nañ ko ci boole nañ ko ci ba pare mais Ousmane Sonko moom mooy tànn même bu dee tànn ba tey léegi bi génnagul maanaam fi liste bi génnagul mënoo xam kii mooy candidat kii kii candidat la kii candidat la ah xam na ne daal mhm. ñun moom ñu ngi ci dëkk bi mhm. te lu bari xam nañ ko ci waaye li ñu wax daal mooy Ahmed Bamba Diop. Mhm. ak Imam Darame ñooy nekk député ci Mourad mhm. national. Mhm. loolu daal dégg naa ko moom ñaari jigéen ñi nag laa xamul. waaye daal lu mën a xew man li ma bëgg mooy. gis nga mbir. nañ koy teg ci dëgg. parce que dëgg boo ko xësee teggi rek. man mënatumaa def ak yow man parce que man ni may ànd ak mooy dëgg. man injustice la bañ. waaye buñ ne sart sart yi kat ko tënk. nañu fexe ba respecté loola. Mhm. même su ko amul am na ñeneen ñu ko am mhm. bu amul carte membre am na ñeneen ñu ko am waaye bu mu tax ñu jalgati daa wala ñu ragal aw làmmiñ ta am na ci ñoo xam ne ragal seenu làmmiñ doo nga tax poste yéen am ñu yor ko te loolu nag jaaduwul. jàpp nga ne ragal seen làmmiñ ñoo tax. Ah. ci koo xam ne maanaam moom wax na ne ah, njiital parti bi dégg nga waxam yi nga xam ne daana ko wax yooyu noonu yëpp daanaka sëfu ko mais est-ce jàpp nga ne tamit loolu moo tax tamit. waaw xam nga fan yee jàll. Mhm. wax na ba mel ne ku xaw a menacé. mooy bi mu naan yonente bi alayhi salaam da daan saaga xam nga loolu dëgg waaye teewul wax na ko mm-hmm. ngir mu mel ne daal mu ngi waaj a fépp di am lu muy bëgg a wax mm-hmm. kon kooku dañ ko waroon a yar sax bañoon koo dugal ci liste yi dañ ko waroon a génnee carrément mm-hmm. waaye kenn wuru ko wuru ko ci woon a boole parce que loolu dañ ko waroon a def ngir yare ko ah waaye nag bu fekkente ne daal ki gé ki ëpp lu mu génn terrain daal moo ëpp privilège ki nekk ci terrain bi di liggéey ah man loolu xaw ma ko ba tey Pastef dafa fas yéene demee li nga xam ne moom moo di parti boppam est-ce que jàpp nga ne maanaam dana yomb ngir mu am li nga xam ne moom la daal di bëgg parce que coalition président Diomaye ñoom doonte ne tësuñ ko waaye Pastef dafa fas yenee demal boppam lan nga jàpp ne moom moo tax mu fas yéene dem dem ci parti bi moom. waaw li ma jàpp ne moo tax de. Mm-hmm. waxoon naa ko fi bu yàgg. Mm-hmm. ba ñu jëlee élection maire ya mm-hmm. daal di def coalition intercoalition boole mhm. daa leen ñii waruñu woon ànd ak ñoom mhm. parce que ay warkat lañ de mhm. élection législative ba mu ñëwaatee ma dellu ko waxaat waaye loo ci gis mboolem ña transhumé woon ñëw amee amee postu maire ci Pastef wala ñu amee ko député ci pas Pastef ñi ci bari dañoo war damaa jàpp ne nag xëy na président loolu da koo yee ma jàpp ne xëy na loolee ñu defoon moo tax mu bëgg a ñëw euh, daal di demal boppam nga xam ne wala bu de bu fekkente ne day demit képp ku bokkoon ci beneen parti da ngay ñëw duggee ci list Pastef nga xam ne boo ëllëgee boo génnee itam mën ngaa bi jafe-jafe. jàpp nga ne stratégie boobu nga xam ne teg na ko moom Ousmane Sonko bu baax la ci parti bi. waaw man jàpp naa ne. Mhm. jàpp naa ne mën naa baax de. Mhm. waaye tamit mën naa am ay gàllankoor. Mhm. ci gàllankoor yi comme. gàllankoor yi comme mooy. frustration bu baree ci parti rek. mën na indi jafe-jafe te xam nga keroog maa ngi maa ngi siifur ndar. jàpp nga ne maanaam frustration boobu tamit yoon la tamit. ci jamono boo xam ne maanaam ñii dañuy doog a jël li nga xam ne moom moo di nguur defagul un an defagul euh, douze mois defagul maanaam yàggagul daal frustration est-ce que teelu ci parti boo xam ne maanaam mille 2014 ba léegi mi ngi xeex ba tey jii muy doog a yegsi si li nga xam ne moom moo di pouvoir bi est-ce que itam loolu tamit jaadu na tamit. waaw man de wax dëgg yàlla bu ma sañoon daal. Mhm. ndam rek la ñu am waaye daal mbir mu ne nañ ko teg ci yoon. Mhm. parce que mbir boo xësee jalgati yoon rek. Mhm. xultu yi bu tàmbalee génn rek. bu yàggee day yàq lu bari. kon ñoom li war a def rek mooy. ñu jéem a góorgóorlu jéem a dajalewaat si ni jéem a waxtaan ak ñoom bu ko defee ndax waxtaan ñàkk waxtaan day indi ak réeroo mhm. waaye buñ dee waxtaan ak nit ñi rek comme li ma la wax léegi ne la mhm. dañoo waroon a fexe ba waxtaan consensus am comme nañ ko defee bii passé mhm. benn coow déggoo ko bii yoon nañ defoon bu njëkk defuñ ko bii yoon xam nga bu fekkente na tey dañ ne rek ku ku bëgg a bokk doon candidat rek ñëwal bindu nga dem wuti ay këyit dagg sa yitte dagg sam xëy dem wuti ji këyit ba ñëw ñu bañ laa sa temps boobu ñu yàq mënoon naa ñàkk maanaam bu ñu dajale woon ci suñ biir waxtaan danañ am consensus boo xam ne mm. danañ am juróomi député yi ñu bëgg a tànn ñoom ñu dem wut seeni i kayit ñeneen ñi dem doxi seen i soxla mm. yaa ngi dégg loolu man jàpp naa ne moo nekkoon ni gën mm. te man loolu laa mais boobu moo dul yomb ah, consensus boobu daana fi am consensus moo fi amoon consensus moo fi amoon bi passé xam ne bu ci pouvoir ak lu nekk ci pouvoir bokkuñ de waaw li li xew daal mooy mm-hmm. man daal bu ma sañoon daal ñu gën a waxtaane nit ñi te itam fexe jàppale. Mhm. nit ñi nga xam ne ñoo leen doon jàppale démb ak bërki démb fexe ba. Mhm. am ay financement te bañ cee xaajale kenn. Mhm. waaye bu fekkente ne daal. ñii dañuy liggéey bay bëgg a dee. ñee nekk ca kaw nga xam ne ñi nekk ci kaw daal lu ñëw rek ci ñoom lay yem. te boo waxee ñu ne da ngaa bëggub cër ah loolu itam bu yàggee day découragé loo ñu bari de. loolu moom booy boo ñu xam ko de. yow daal loolu loolu nga jàpp ne mën naa li nga xam ne moo di frustration ci parti loolu daal moom booy boo ñu xam ko moom. Mhm. léegi dañuy daal di waxaat ci leneen jamono ji gis nañu euh, benn journal génn benn titre mooy la témoin suma jumal wax ne lenn ci ay DG waaye itam ak i ministre tere nañu leen ñu génn li nga xam ne moom moo di réewum Sénégal naka nga jàngatee loolu ak naka nga ko gisee itam. waaw xam nga nag loolu du yoon. Mhm. parce que këyit buy tere nit mu génn pëli sa koy maanaam juge moo koy bind. Mhm. waaye xam nga du yoon waaye yoon la xam nga du ko tax a doon yoon. mooy ñoom ñoo ko fi yoonal parce que ba ñuy barricade Ousmane Sonko bu fekkonte ne dañoo bàyyi woon ba euh, juge bind aw kayit te booba ñoo yilif juge yi ñoo yilif ñëpp mhm. dañoo waroon dem ci juge bi ne ko bindal ñu kayit mu bindal leen kayit bi war a ne Ousmane Sonko warut a génn këram mhm. su boobaa luñ mën a defit du am problème mhm. su bu buñ leen bëggee jékki-jékki di leen aaye réew bi su boobaa ñëpp taxaw daal ne diitu yoon waaye ñoom ñoo fi yoona lu yoonu kon bu ko ñuy defee itam ñoom duñ leen sañ a wax dara. Mhm. parce que dégg naa ñuy kaas. mais ci ñoo xam ne maanaam jàpp ne jël alalu wi itam maanaam ñu nar leen a bàyyi noonu ñu génn est-ce que itam stratégie boobu nga xam ne teg nañ ko nekkul loo xam ne lu jaadu la tamit. waaw waaye kay a koy wane xam nga mënoon nañoo bind kayit daal ne diw ak diw ak diw kat buñ génn réew mi. parce que journal bi xanaa moom du ko génnee noonu rek. am na ci lum sukkandiku ba tax mu génne information boobu ne. waaw xam nga kuy dem ku dem ba la. Mhm. kay loolu ndax mhm. ndax Lat ba muy dem. Mhm. dañ ko wañ ok mi euh, keneen ak keneen am am na kii am na keneen ku doon dem. Mhm. moom itam dañ ko wàññi. xam nga loolu dana fàng. kayit bu bu kii la kayit bu génn la. waaw dana dana fàng ne dàng. waaye dama ne la ñoom dama ne la lii du yoon waaye yoon la. li ko li ko tee doon yoon mooy. juge moo war a bind kayit. daal leen di aaye ñoom daal ne diw ak diw ak diw kat buñ génn réew mi. ndax dañ leen a dénkoon alalu réew mi. waaye li ko tax doon yoon mooy ñoom ñoo ko fi yoonal. Mhm. parce que ba ñuy barricade Ousmane Sonko booba mhm. amul benn këyit bu ko wane mhm. waaye dañ ko defoon ci maatay kon ñoom itam bu mbir mi wëlbatikoo ba ñëwaat ci seen kaw ah nañ ko muñ rek tey itam nag ku soccu nag jërul ngay tiit koo ci xam ne jëloo alalu réew mi wax dëgg yàlla jërul ngay tiit suñ ne laa bul génn kay yow kay neel nañ ma woo rek Lat Diop woowoon nañu ko ginnaaw loolu mel ni ko koy topp ci li nga xam ne moom moo di xaalisu LONASE ci LONASE la bokk na ci li nga xam ne moom moo tax ñu woowoon ko diglu ko waaye itam defoon ko li nga xam ne moom moo di garde à vue naka nga jàngatee loolu nga xam ne def nañ ko laaj Diop ci koo xam ne doon génn ñu ñu ne ko mu mu mu toog ci biir réew waaw ginnaaw Lat Diop moom dañ koo dénkoon. Mm-hmm. su fekkee dañ ko dénkoon moom. Mm-hmm. am nañ sañ-sañ ñu laaj ko. man kay li may bañ mooy yàgg naa ko wax fii mooy. Mm-hmm. jàpp koo xam ne amoo benn eh, kii ci moom. ba pare di ko def garde à maanaam nit ki ba dañu ko def garde à vue ba pare. nañu fexe ba dañ koy tuumaal moom moo am dara lum ci laale. Mm. su boobaa ñu doog kaa téye mm. suñ ci amul lu wóor nag nañ ko bàyyi muy doxi soxlaam mm. ba keroog ñuy enquête di enquête ba am lu leer doog kaa téye buñ ko waree yóbbu kaso yóbbu ko kaso waaye jël nit daal koo xam ne da ngaa da kii ci moom rek daal koy jël téye nga enquête enquête gisoo ci moom dara nga ne daal dama koo mere faaw ma def ko garda bi loolu moom d'accorduma ci ni ma ko doon bañ a démb ak bërki démb noonu laa ko bañe ba tey jii kon daal su fekkente ne laaj jóob saytu nañ ba xam ne yurul dara wala sëccu dara mhm. su boobaa moom nañ ko bàyyi mu ñibbi këram mhm. suñu xoolee ba xool ba xam ne kat ah moom kat liñ koy tuumaal am na lu mu ca laale mhm. ñu téyee ndeegoon ko di enquete ba am lu leer su jëlee ñu seet daan yem yelloo ñu def ko ko bu fekkente ne jëlut ñu bàyyi ko mu ñibbi këram waaye daal ay milliards moom kuñ ko dénk c'est normal nag wax dëgg yàlla nga ñëw wax nag fan nga ko dugal fan ko léegi dañuy daal di waxaat ci leneen ci affaire ki nga xam ne moom moo di euh, Farba Ngom moom ginnaaw loolu nga xam ne journal bindoon na ko moom génnoon na wax ne saa bu bëggee génn li nga xam ne moom moo di réew dafay daal di génn bu fekkee sukkandiku na ci li nga xam ne moom mooy règlement assemblée nationale parce que moom fa la ko tënk di wax ne maanaam ba tey li nga xam ne moom moo di député la. léegi ba tey waxaat na ci biir conférence de presse boobu nga xam ne doon na ko amal mu di wax ne. dafa am ay policiers yoo xam ne dañoo ñëw këram dajji ko di xool xaw ma xaalis la fa xool xaw ma ñu nga jàngatee yooyu noonu itam fee yooyu. waaw bu dee bu mujj bi daal dem kër jàmbur di ko dajji loola moom rafetul dañ ko waroon a yóbbul convocation ba xam dana ko wuyu si wala déet. Mhm. su fekkente ne wuyu si ko nag buñ ko fekkee këram nag luñ ko fa def rek moo tooñ. Mhm. waaye ginnaaw joxuñu ko benn këyit buy wane na dañ kaa mhm. waruñoo dem këram nag di ko dajji. léegi nag buñ ko joxee kayit daan na ko ah, dañ laa convoqué wala boog dañ na ko sa kër gi kat daa am luñ fiy jort ubbil ñu bunt yi mhm. moo ubbi bunt yi ñu visité kër ga bu ñu fa gisu dara ñu dem bu ñu fa gisee dara lu ñu ko war a mën a jàppe nag doo ko jàpp mhm. waaye daal jékki-jékki rek ne cirib mel na ay bandi dugg ci kër jàmbur di dajji loola moom rafetlu ma ko mhm. bu fekkente ne beneen bu njëkk bi sax loo waxati maanaam moo di maanaam dañu ko tere li nga xam ne moom moo di mu génn réew mi moom nee na ci journal yi la ko daal di gisee waaye itam moom la mu xamle moo di saa bu bëggee génn li nga xam ne moom moo di réew mi dafay daal di génn bu fekkee règlement yi nga xam ne assemblée teg na ko ba jamono ji donte na def na assemblée nationale waaye moom dafa continuer nekk li nga xam ne moom moo di ba keroog ñuy installé waat assemblée waaw Farba moom loolu mu wax moom mhm. ñun bala ñu see xam dara daa dem daa dem aéroport rek ba xam mhm. danañ ko wàññi wala duñ ko wàññi xam nga wax ju bari ji daanaka jëru ko mhm. ñoom ñoo yore woon gu Mhm. daan def lu leen neex mhm. xanaa far ba bu gëmee yàlla sax war naa xam ne lii mbirum suñu borom la mhm. léegi nag bu fekkente ne nam fi nekk woon nguurug ke Sall ba lu ko neex def lu ko neex wax du mujj fenn na xam ne la woon wondi na léegi nag bu dee de bu dee bu ko heure bu ko neex génn ah na dem aéroport rek ba xam danañ wala kenn du ko wàññi suñ ko wàññiwut nag ah su boobaa nag bu ko neexee bàkku daana man heure bu ma bëggee génn génn ndax député la waaye feeg dama gudd aéroport daal toog ci réew mi naan ay saa yu ma bëggee génn génn loolu moom ku ne mën na ko jërëjëf léegi dañuy daal di jeexale ci taw bu métti bi nga xam ne amoon na fan yi ñu weesu waraloon Touba am jafe-jafe li nga xam ne nag moom moo di inondation waaye itam ñu bëri génn ci li nga xam ne moom moo di seeni i kër waaye itam am ci ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan naka nga jàngatee loolu ci jamono boobu. waaw xanaa ñi si ñàkk seen bakkan di leen masawu. Mhm. di ñaan yàlla na yàlla yërëm leen te xaare leen àjjana. Mhm. su ko defee nag ndoxum taw moom. Mhm. kenn mënu ci dara yàlla rek a ci man dara. waaye nag. Touba ci boppam niñ koo dëkkee mhm. maanaam quartier bu ci nekk mhm. dañoo waroon a fexe bala ñu koo dëkkee tàmbalee génne assainissement yi mhm. su ko defee ku dëkk doo am problème bu ndox mi ñëwee rek dana am fu mu jaar waaye Sénégal ñun ni ñu dëkkee par rapport ak boo demoon Abidjan Abidjan bala ñu sanc ab quartier ba koy joxee di ko dagg di ko lusi dañuy fexe ba amal ko ay këri boo amal ko ay mbedd nga xam ne saa yu tawee taw bi lu mu bari bari bari même pas trente mille nga gis ndox mépp jàll yaakaar naa ne Touba gii lu mel noonu lañu ñu a fexe. fexe ba bépp quartier boo xam ne bëggati bëggati nañ ko euh, dëkke ñu fexe ba defal ko ay yoon defal ko ay caniveau nga xam ne ku fa dëkk doo am jafe-jafe waaye bu fekkente ne da ngay ñëw rek fàkk dëkk fàkk dëkk fàkk dëkk ndox moom du bàyyi yoonam te itam boo tabaxee te néew doole ku la ëpp doole bu ñëwee tabax sëkk këram ndox ma waroon a wàcc këram ci sa kër la jëm kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la beneen bi ci des itam mooy chantier yi ñuy def Mhm. ak Touba ca kanam li ñuy participer. Mhm. dañ ko waroon a boole arrêté sànc yëpp nag. Mhm. di def ko ay rigol dagg mbedd yi génne mbedd yi koo ci xam ne dëkk nga foo xam ne kat ndox fa ne. ñu fexe ba jël ko jox la feneen. waaye waruñu laa bàyyi nga di fa dëkk ndax ab coono dong la day jural. nawet boo xam ne yow saa yu nawet ñëwee nga génn sa kër. surtout nab bi. daanaka ñi jege jumaa ji boo xoolee ñu baree bari seen kër gi nob la. yàgg yàgg dañ fay jógee rek. kon su boobaa nag fexe ba defar ay caniveau yu bari arrêté sànc yëpp te jublu ci loolu loolu moo gën donte nag gouvernement bi day bëgg a def lu fees lu nit ñi di teg bët. xam nga bu dee ay kenn wa mën nañ ne ah, kon nit ñi di ko gis ak yooyu waaye loolu moo ëpp priorité. Mm-hmm. maanaam loolu moo gën a nekk ab liggéey. Mm-hmm. fexe ba bu tawee nit ñi mën a toog seen i kër. Mm-hmm. kenn bañ a génn. ci loolu lañu ñu war a concentré bu ko defee nag waa Pastef ñu ngi leen ciy jaajëfal ndax. ndox mi bari woon na lool ba jéggi dayo waaye nag wax dëgg yàlla def nañ ci effort ndax yónnee nañ ay matuwaay. yónnee nañ ay matu pompe foo jaar ñu ngi pompe. yaakaar naa ndox mi ni meloon. fi mu ne moom bu ku génnaat ci dëkk bi xam ne wax dëgg yàlla mhm. def nañ effort ay jàmbaar lañu mhm. donte nag yàggagul ci nguur gi waaye nag wax dëgg yàlla def nañ effort de mhm. gis nañu tamit ki nga xam ne moo di honorable comme ni ko waxee génne lu toll trois cent moto suma juumul pompe yoo xam ne joxe na ko waaye itam gis ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw yi GPS yi nga xam ne ñoom ñoo di Touba ñu topp mbedd yi pompe yi itam waaw sëñ def ñu ko ciy jaajëfal ndax loolu doo nga tax na ñuy su fekkente ne dañuy fal ay député mhm. dañoo bëgg mu taxaw ci wetu askan wi mhm. waaye loolu mu def wax dëgg yàlla ñu ngi koy saluer mhm. te itam ñu ngi koy rafetlu moom daal li ma moom daal bu ma amoon lu ma koy sikke lenn dongu laa koy sikke mooy boo ko doo ko jot lu mu sono du la wuyu man daal loolu dongu laa koy sikke waaye bu du loolu moom wax dëgg yàlla mi ngi def effort te itam jàmbaar la ci dëkk bi ndax lu mel toll ne trois cent moto pom ku ko jënd wax dëgg yàlla mhm. bëgg ngaa dimbali sa sa sa waa mhm. kon député yu mel noonu moom bu ko mhm. Touba amoon moom dana baax trop wax dëgg yàlla kon loolu moom ñu ngi ko ci saluer ñu ngi koy jaajëfal di ñaan yàlla euh, yokk ko ay xewal ba gën koo man jërëjëf oustaz amoon nañu mbégte dalal la xam naa ñu bàyyi la nga tàggatoo waaye laa lépp loo xam ne bëggoon nga koo wax te suñu xel àggu ci rek bu ko defee nga mën ci parti bi incha allah waaw kay jërëjëf xam naa wax daal mooy nañu fexe ba président Ousmane Sonko bu mënee dem ci gox-goxaat yi. Mhm. fexe ba dajale war parti yi di wax ak ñoom. Mhm. parce que boo toppee sa asanda daan ne ma jot. Mhm. ñenn ñi mën nañoo gis seen bopp. ndax xam nga ne yow président. maanaam biñ bi Touba nekkee di Pastef ba léegi. at mu jot maanaam élection yu ñëw rek dana ci am écart bu jéggi dayoo. kon la mu waroon a def mooy dagg ay yitteem ñëw xool responsable yi mu fexe ba dajalee ne am ak ñoom rencontre waxtaan ak ñoom ah waaye nag waroo toog rek naan awma jot ak nangam ki nangam loolu day tax nit ñi jàpp ne kat da nga leen a xeeb beneen bi ci des itam mooy kenn ku ci nekk coordinateur ba nga nekk département ba nga ne doon fa coordinateur dajale parti bi ñëpp waxtaan ak ñoom te def leen bañ a xeeb kenn lépp loo dugg ñu xam ko te képp koo xam ne itam dañ koo def député mu fexe ba gestu ñu ko fal ndax kenn ki mën mënta def député boppam te buñ xësee ànd ak yow ba fal la itam war ngaa fexe ba li ngay am ci assemblée ba nga fexe ba sa askan wi la fal ci seen bopp bu baax a baax kon dal lu ci jub yàlla la lu ci deug man la in uridu ila al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf oustaz amoon ñu mbekté dal la jox len digdeje benen yon inshallah incha allah jërë ngeen jëf